a été bafoué maintenant nag puisque ça a été bafoué amuñu lu dul dénoncer ce comportement la parce que lii moo xew Sénégal Sénégal boo xamante ni amul liberté te ñi yor ñi sox ñi yey ñi ñi yor nguur gi bii dañ doon xeex laa liberté ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi dañ doon xeex loolu aujourd'hui on a vu que ce sont les mêmes comportement qui se passent dans ce pays là et c'est vraiment domage mais daal lii la ñu bëgg wax mooy ñun amuñu lu ñuy tiit dañ ñoo génn génn nañ tranquillement ñëw toog Mais nu ce que nous réclamons et nous l'avons toujours réclamé, parce que nous pensons que Badiakate n'a absolument rien fait. Donc nous demandon et jusqu'à présent nous pensons qu'il sera libéré. Parce qu'un otage, on le libère. Et nous considérons Badiakate comme un otage. Donc loolu moo xewoon ci biir moo tax nga gis nit ñëpp mbooloo bi yëpp génn ci biti donc puisque nous nous sommes des républicains et nous sommes disciplinés duñu sàddi xeer duñu sa duñu taal pëna duñu def leneen parce que ay doomi am na ay doomu am na ay doomu aadama yoo xamante ni bëgg nañ profiter sur cette situation là pour déstabiliser le pays am na ci ñoo xamante ni bëgg nañ su profiter sur la situation de Bah Diakhaté pour déstabiliser le pays Sénégal it parce que loolu la ñu tàmm profité ci situation nit pour taal réew bi ñun nag duñu taal réew parce que li ñu nar a yàq président Macky Sall moo ko defar li ñu nar a taal président Macky Sall loo koy defar ñun ñun bokkuñu ci ñi nga xam ni dañuy taal réew wala dañuy taal pëna dañoo yaru dañoo ànd ak yar mais nag suñu yar dafa am fu mu lem dafa am fu mu yem fi mu yem nag mooy ñu bàyyi Bah Diakhaté mu ñibbi suñ ko bàyyiwul tey lu ñu gis suba ñoom la. Ah, waaw une grande mobilisation de la part de. ce que nous allons faire nous n'allons pas le li ñu nar a def. duñ ko wax mais tout ce sabon nous sabon nous savons nous sabon nous savons nous battre et comment nous baat avec les moyens que nous avons mais daal li ma xam mooy dañ leen di junj rek dañ leen di junj rek Dakar naaf moom xam naa ni préférence nationale amatu fa nangu nañ ko ci sa ci keneen jox ko ab tubaab maintenant nag du loolu lañ ñu jaayoon ma junj leen rek sànni leen. jërëjëf nga sànni quelque quelque cadre rek euh,